mu jëm ci sëriñ Muntaxa ci jëf ju rëy ji nga xam ne jëfati na ko muy tiis wi nga xam ne dal na ci kaw ñëpp ndax li xew marché Ocass tiis la woo xam ne wax dëgg yàlla ci kaw jullit ñëpp la dal na waaw ma jullit boo xam ne day day yaxantu ngir dundal boppam dundaluk njabootam joxe addiyaam tiisu tiisu nii bu dalee ci kawam amul kenn ku mu dalut sa kaw maanaam kay gën a jege am ak gën a sori waaye ci kaw ñëpp lay dal ah sëñ Muntaxa nag wax dëgg yàlla man damay wax ne addina bépp a war a ñaan mu yàgg fi du murid yi a war a ñaan yàgg fi ndax jamono dana toll foo xam ne am na kilifa goo xam ne bu ko yàlla joxee waa àddina war nañ koo sant yàlla te gën a góorgóorlu ndax sëñ Muntaxa mel na ne fi ne nag booy xool àddina di di di suivre actualité di xool àddina bi fenn fu ci nekk mel na ne kilifa gu mel ne sëñ Muntaxa Sénégal képp képp képp képp ko am maanaa amut feneen ci kaw suuf loolu nag ku xóotal sa gëstu rek da nga ci teg sa bët naka jekk ku ko mas a xam ci nii nga ko xam maanaam moom damay man damay wax ne lu baax jëmmi lu baax bu fekkoon day am ba dafa doon baat bu ñuy seet cib dictionnaire boo demee ba ca dictionnaire ba boo ko ubbee baat bi buñ ko jëmmaloon muy jëmmi nit ku taxaw jëmmi sëñ Muntaxa nga fay fekk man lool laa wax man yàgg na lool ci lu baax mën nañoo wax sax mën nañoo wax ne sax ñi ko xam ñëpp biñ koy xamandoo itam wenn melo wi lañu xam ci moom mooy nit ku baax a ngi nii nitu yàlla dëgg ngi nii am murit saadixa ngi ni bu dara raxul muy ku ñëpp war a ñaanal mu yàgg fi waaye nun ñi yilif nag noo ci raw gis nga sëñ Bas sëñ Muntaxa nun ñi yilif boo ma nee nun nun yilif nag kilifteef gi mën naa yaatu mën naa yilif sax koo xam ne kooka du du yëg ne sëñ Muntaxa ku yilif fekk ci ron kilifteefu sëñ Muntaxa la nekk ndax jëmm bu fekkente ne bi mu ngi lay bàyyi xel ci sa bopp fu mu toll mi ngi ñaan lu la may jàmm mi ngi ñaan lu la mayu wér mi ngi ñaan lu la noppal bu la ak bu la xamut jëmm ju mel noonu ku ko xam ak ku xamul sa kilifa waaye nun ñi nga xam ne kilifteef gi nag nun yëg nañ ne mooy sunu kilifa war nañoo gën a góorgóorlu loolu nag bu ma ko waxee nun murit nun murit moo tax may wax soob na sunu boroom képp koo xam ne ab murit nga jamono yi nu toll sëñ Muntaxa mooy sa kilifa ku di murit nag laa wax bi si fa am génnewuma ci kenn damay jël ñëpp dugal leen ci benn barab su boobaa ndax ku mën a doon rek am murit nga bu fekkente ne bi kañuy topp la kañuy topp am murit la ak ku mu mën a doon ka koy topp am murit la ñoom ñëpp boole seen sëñ Muntaxa li ñuy lif loolu la yàlla dogal kilifa gu mel noonu nag ku ko yàlla jox war ngaa gën a góorgóorlu ci sa bopp ci jàppale ko ci ci sa bopp ni ma ko daan waxe ndax yàlla def na ni ma ko waxee léegi ñëpp la yéen a jàmm boo xoolee atum ren mi mel na ne moom sax naka jekk musta noppalu musta aat ndiku ci samp am njariñ ak defar lu baax waaye boo xoolee atum ren mi li wàcc ci kawam ci ay coono ak ni ko géré moo lay won kilifa gu mat kilifa ku ko amut yaa ngi ci guddi gu bët setagut wéeruwaay soo koy wut na nga fexe ba am ci bu dëgër ndax jamono ji sëñ bi doy na waar lool lool lool lool lool ba jéggi dayoo ndax liberté yi bari na lool sama classe gi kenn ku ci nekk am nga weneen doxin wu bokk ak doxin wañ mii noonu ah te ñooñu ñëpp fi mu ne moo leen boot rogganti leen mboot mboot mu metti nag liberté d'expression bi bari na kenn ku ne yaa ngi wax loo bëgg wax ak noo ko bëgg a waxee te ñu ëpp ci ñooñu ci ron kilifteefam la lañu nekk mënul leen a ñàkk bañ a saytu it ndax moo leen ñu ngi nas ñu ngi nocci nas yeeg nocci yépp ci moom lay mujj ndax mooy kilifa gi waaye seetaanul nit ñi ci genn wet lu taxaw rek mu def ca lam ca war a def gis nga alal ji mu jël dugal ko ci marché Ocass covid bi biñ ne covid covid covid covid pandémie mooy ki njëkk a génne alal ju bari joxe ko ci docteur yi ci faj mu di leen teral njabootu boppam génne alal ju bari def ci mu boole ci ay ñaanam ak i xalaatam fexe ba réeroo wut ak waa àddina ci li ñu nos ñoom waa àddina te bëgg ko ca jaar mu jaar ca waaye téye na diine itam ba diine dara yàquwu ci citoyen sénégalais bi mu doon wone na ko ci bonewin wu yéeme ba damay wax ne fi mu ne ba tey jii may wax ak yow foo ko fekk mu ngi takk maskam ci waxtu wi nga xamee ne ñi ëpp ci nit ñi takk tekki nañu seeni masque waaye moom foo ko fekk mi ngi ko takk maanaam loolu li muy firi li muy firi mooy moom du du defantu du jàppantu lépp lu muy jàpp lu dëgër lay doon lépp lu muy def lu wóor lay doon ba jamono ji ñu toll mi ngi takk mask te moom wóor na ko ne masque muslewul ci li li li li am nii yàlla sunu boroom moo ciy musle te wéetal yàmba yàllaam moom wéetal yàllaam du lu kenn di laam-laame sunu boroom la jox léppam sëñ Muntaxa moom jañut jañut ñoddiwut ñaar yëpp defu ci dara li naar bi waxoon sëñ Tuubaa rek moo dal sëñ Muntaxa falam tara xayrallaahi yanfaau darratan walam tara xayrallaahi subhaanahu yadur yadur naar bi def na Sëñ Tuubaa moom yow moom gis yàgg ngaa gis ne ku dul yàlla mënut a jariñ yàgg ngaa gis na it ku dul yàlla du lor yàgg nga ko gis fa lasta bi hayaabil muluuki li mulkihim wa lasta bi miskinim muhinim bi muxtaqir buur yi li ragaloo leen maanaam li ne fi ñoom tegoo ci say bët miskin mi amul dara it xeeboo ko suñ mun taxaa noonu la doxe kon moom xam na ne masque yi nii fegul dara tawat ji yàlla koy fekk te te teeloon na ko waxal boppam ba mu ne corona ndaw lu fi yàlla yebal la bu jeex mission la ko jox bu jeexee jeex na foofu la ci tollu ci pas-pas ak yëg-yëg ak bàyyee yàlla mbiram teewul nag ñi ñiñ séqal waa àddina lim séq ak ñoom ci àddina lañ ko cay wax te dina nangu ko nangul na leen ko te benn xëccoo di ci am benn jafe-jafe du ci am looloo tax lu xew rek ne nañ ko soppi ndax jamono soppeeku waaye moom war na war na leen ay firnde yu wóor ci ne kudut yàlla mënoo lëf mënoo def mënoo dindi te ñoom sax nag loolu jommal na leen ndax ku xool màggalu Tuuba biñ ci jógee defe naa ne zéro cas moo am moom ndax bu bu leneen amoon rek <laughs> la kon su boobaa nun dara dootuñu jar ndax da dégg lu ne ci nun waaye booba ba tey ñëpp noppi nañ ndax ñu bari liñ doon séentu nag yàlla musal na ci musal nañu ci barkeb sëriñ bi ba kenn gisu ko mooy dara propagé wul dara yokkuwul au contraire dafa mel ne màggal gi dafay jóge yóbbaale ko mu dem waaye ba tey jii boo xoolee ba léegi rek mi ngi takk masque kon moom waxtu wu ne li li li li li li citoyen war a def li jullit war a def li murit war a def waxtu woo gisee sëñ Muntaxa rek mooy ka cay jiitu ndax ku ne xam na ne masque takk ko neexul sëñ bi daf lay étouffé loo doo mën a noyyi normalement daf la dafa c'est gênant daf lay gêner waaye ginnaaw nun lañ mën a nun nun la masque mën a gêner nun ñi nga xam ne demunu fenn ay gone yu ndaw lañu di lekk ka naan ka nelaw nekk ci sa digg kàttan yow la yow la masque mën a gêner sama jëmm ju tedd ji nga xam ne moom lekkut naanut nelawut talut ku dul boromam te ba tey ñu ngi koy takk kon kii gàcce ngalaama moom ñu waa àddina amuñu benn baat bu ñu ko mën a wax lu dul yoreel ko ngërëm suñ ko gërëmee buñ ko gërëmul loolu képp lañ ko deseel ak wormaal ko ak wàcce ko wàccuwaay bi ko sunu borom wàcce waaye nag ndeysaan nit ki bu réeree rek réer na yàlla defal nanu loo xam ne ca kanam kanam lañuy xami kii nu yàlla indil mooy kan Ah, baax na xam nga koo xam ne lu xew mu génne alal yóbbu ca nañ xool réew mi yi fi xew yi fi xew yépp fenn fu ne lam fa def diine ji moom benn benn la gi mu wane ne diine ji benn la moom loolu moom dafa fés te dafa leer nañ ñi mooy ku xewle ci diine rek danga nga gise ndawam da nga gis alalaw alalam xew-xewu diine bu mu mën a doon ba ci xew-xew bi nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk muy tabaski muy korite muy gàmmo ni ko ñëpp di defe noonu la koy defee walla mu ëpp leen aw defiin te teewut fenn fu ci nekk boo fa demee da ngay jàpp ne moom moo fa ne di ko def di ko defandoo ak ñoom te boolewu ci wax ku mel nii nag li nit ñi war a séq ak moom mooy di ko ñaanal te bañ a xeeb seeni ñaan di ko gërëm guddi ak bëccëg di ko déglu te li muy wax ñu di ko def lépp lu mu xalaat wax ko ñu jëfe ko na mu ko nu defe ko na mu ko na mu ko waxee xalaat bu mu génne nu ànd ca ak moom te xam ne loolu sunu ko defee sunu jàmm képp la ñuy jural léegi nag loolu moom ñëpp a ko bokk mooy ki nangu li li ma wax ak foo mën a bokk liñ daan wax ne sëñ bi daana ko wax ne buy digle sëñ Tuubaa daana wax ne li man yaqbalu min ni nusxa maa ngi wax ak ki nga xam ne nangu na ma laabire ko moom maanaa dam bi sifa am ñëpp a ko bokk mooy kenn ku ci nekk war ngaa xool sëñ Muntaxa mooy kan ci yow yow sénégalais beeg yow jullit bi yow mi doonul jullit bi yow mi bokk ci beneen tariqaak jéem a la xool sëñ Muntaxa lan la représenté ci yow kan la loolu ñu bàyyee la ko nga def ko sa mbirum bopp wéet ci sa digganteeg sa borom xool kii ku mu doon ci sam réew nga atte ni mu la soobee. bisimilah amaa nun nag nun murit sëñ Basiru sa laaj bee tax ma ma ma guddal ndax dafa am solo amaa nun murit nag nun murit rawatina nun gone yi mag ñi moom kenn ñemewul kenn gone du taxaw di jàkkaarloog ñoom di am dara loo leen di loo leen di wax mag ñi mag ñi ñoom mag ñi lañu ay bàyyi ki maam ñooñu moom fekk nga leen ñu ne ci yoon wi ba xam lu bare bare bare bare bari gone du jubbanti mag déedéet waaye nun ñi nga xam ne noo maase ak ñi nga xam ne noo leen féeteeg mag nun gone yi nun gone yi nanu delloo ci sunuy xel te yam ci dooni gone boo seetloo réseaux sociaux yi intervention yi génn yépp gone ko génne moo xam yu rafet la dañuy dégg ah gone ga da la mu wax tuwarkal waxam ji am na solo lool waaye boo ko xoolee ñaari li ci ëpp du borom bi jaaw gone ko def bu dee lu ñu wax ñu ne ndo boo xoolee ka ko def gone la d'accord gone yépp warunoo mën a bokk yam ndax gone gune ak sag ngone ak fa ngay gone woo ka nga ron ka nga nekk ci ronam muy sa kilifa yow gone gi kooko kumu loolu mat naa bàyyi xel te bàyyi xel na doon gone kat teewut a xam lu baax ndax loo gis mu samp ci diine rek bañ di ko naw kan na ca bopp ba bi mu koy samp ci ngone la ko def ak lu mën a doon jàngaatal taarixul islam di wàcc ba ci sunu jamono ji koo ci gis rek ak ngone la njaal bennoo kon doon gone teewut a xam lu baax doon gone teewul di daw lu bon ci wax ak ci jëf kon nun gone yi nanu nanu nanu delloo si sunu bopp te jox war ma sunuy kilifa gis nga kilifa kilifa la yow gone gi bu la yàlla euh, bu yàlla defoon nga nga am xel xel mi rafet lool gën a rafet xelum sa kilifa it gis nga sa xel mu rafet moomu bala nga cee jëlee ngërëm dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg wala nga jariñoo ko da nga koy warmaale sa kilifa nëbbu ko nëbbu ko jël xelam ma nga jàpp ne xel xel la muy wax rafetut nga jël loola. muure ko sa xel mu rafet war maale ko lim lay jural mooy danga nga ñoŋ dana la ñoŋal yàlla dana la gën a daggil sam xel sun boroom dana la may sutura bu baax a baax waaye bu kilifa jóg génnee wax nga song ko wax ko lu la neex loolu lu mat a moytu la ñi nga xam ne it nag dañuy tontu ñaare di tontu kilifa ak jàmbur ñooñu li wolof di wax rek wax dëgg yàlla laaxub jàmbur kay moom bàyyi ko mu daw biiram bu mu daw sa biir waaye ginnaaw laax bi taxoo ko jóg yow laax bi lu muy dawee sa biir amul njariñ kon nañu kenn ku nekk bu kilifa yëkkatee kàddoom di wax dangay ngay déglu kiy wax ku mu doon ñan lay waxal am na ñu muy waxal ndax am na ñum sañ waxal ginnaaw ñim saña waxal lay waxal nag yow mi nga xam ne waxut ak yow waaye waaye amal sa maandu tegu tol ne bañ koo tontu ndax waxut ak yow dafa am ñu ko yàlla booleel mu yilif leen sañ a yëkkati kàddoom jëme ci ñoom ñooña lay waxal waaye waxut ak yow ginnaaw waxut ak yow nag doom moom boo ko yoree ci sa biir kër di ko jubbante na koy jubbantee nag wax dëgg yàlla ka dëkkul ca kër ga yoonam mburu ca nekk wàlliyaan sax di atte wala dara bu fekkee boroom kër mayula ko ci biir këram li dig maandu te mooy nga toog sa kër tëj sa bunt jàpp sa njàmbur wala taziru waziratun wizra uxra bakkaar du wàlle kon ñi nga xam ne nag yàlla def na bu kilifa génnee di wax di waxaku njabootam wax jë bu fekkente ne bi da nga caa gis sax sa bopp xamal ne waxut ak yow waxut ak yow dafa am ñeneen ñu moom li muy wax bàyyee ko ñooña ndax ñoom lay waxal ñooña moom luñ dégg neex na leen am na ñoo xam ne seen bëccu ngelu kilifa du leen merloo mukk ci àddina di leen di yokku pas-pas lu leen seen kilifa wax neex na leen loolu la yàlla dogal kon nag nun ñi nga xam ne nun ay gone lañu lañu gën a góorgóorlu boole suñu bopp gën a moytu yu bare bare bare bare te xam ne am na nuy kilifa yoo xam ne xam nañu fi ñuy teg seen tànk nun nañ leen topp rek buñ munta dox ni ñuy doxee ñoom itam nun ñuy def kotti kotti yolli yolli rek bu yàggee mën nañoo jote mën nañ leen a jot waaw te xàmmee bu baax a baax ñi ñu war a àndal ak ñi ñu war a roy waaw ñi war a àndal ak ñi ñu war a ndax ak maas bari na lu yàqule ak bari na ku yàqule ak maasa yàqal mooy roy koo xam ne liberté ba mu am liberté d'expression ba mu am amoo ko jot gam am amoo am amoo ko kay kilifaam du sa kilifa yow sa kilifa dafa am fu mu ne foo xam ne du fa jóg bu àddina bépp doon soppeeku it fam ne du fa jóg te mooy sa kilifa yow ginnaaw am nga taw feexi am kilifa gu mel noonu yow doy lool sa kilifa googu te kilifa jàmbur nga bañ koo xemmeem bu fekkee nag doxin wa rafet na jag na melo baax na ila axirihi su boobaa nga xam ne ni mu doone kilifa keneen la doone sa kilifa ndax li ci am solo rek mooy roy roy nag ku am jikko yu rafet lañ koy def ku am melokaan yu baax lañ koy def waaye du caageenu ku jóg di sa kilifa kon nan jéem a xàmmee te jéem a xool te jéem a xool fi ñuy teg suñu tànk alhamdulilahi rabbil alamina bi nga xamee ne nag sunu boroom tegal nañu lu mel ne seetu boo xam ne kenn ku ne ci nun murit mooy sunub seetu mooy a cheikh mouhamadul muntaqa ayyadahu llahu wa xafidahu wa raa kenn ku ne ci nun na ko jàppeeb seetoom taxaw jàkkaarloog moom xool boppam ba xam jag na wala jagut kon mbokk yal na nu ko fi yàlla bàyyil yàlla yokku ko wér gën koo may kattan may ko xol bu sedd ci njaboot gi ba nim nim yéenee njaboot gi ak njub ak doon niti lislaam dëgg doon ay murid saadix dëgg ni ko sëñ Muntaxa yéenee njaboot gi ci biir xolam yàlla na ko ci yàlla fekk ndax moom day wax dëgg yàlla eh, yéeneen moom coonoom bépp mel na ne booy seet njaboot gi jub rek moo ko sonal waaw dañuy wax ne sëñ Tuubaa nee na sama coono yëpp bëgg lislaam mucc ummatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam am jàmm moo ma ko yóbbee waaye moom mii day am na lu ko ci sëñ Tuubaa donn loo mooy njaboot gi jub kocc jag niñ war a jage bu ëllëgee ñu damoo leen fa kanamu sëriñ bi mel na ne moo yittee boppam yitte jooñu nag kenn ku ne am nga loo ci man ci sag wet nañ ko jàppale ci sunu wet te bàyyee ko wet gi nga xam ne nun mënuñ mënuñu ca sunu bopp mënu ci gën a mën sunu bopp mooy bàyyee ko wetu mu dox suñ digg ak sunu boroom ci di ñu sàkkal ay sàkkul ay njëggal ak ñaan ak yërmande geneen wet gi nu am nun mooy jéem a jag fi kanamam nga xam ne bu nu gisee gis nu xool nu ak bëti xool bu sedd nanu ko def nanu takke new say nanu booloo nanu booloo te woon gannaaw yenn attaques yi buñ ko geesoo bun ko geesu waaw buñ ko geesu am na ñoo xam ne ba ba àddina di tukki dootuñ noppi ci kaw suuf jeex na kenn mënuta ta ñu noppi am na loo xam ne njommite la boo ko gisee te xamoo lu mu doon nga gis ko muy màgg màggin woo mënta xalaat màgg gu gaaw ci ay xéewal ak i teraanga ak baax di màgg di màgg di màgg jëm àllaaxira te naa ko tax a jóg ah nga bëggoon di moom te moom bëggul du yow faw nga wax faaw nga wax waaye yow mi nga xam ne nag yàlla dimbali na la yow ba teg la ci yoon woo xam ne nii moom amul lu dagg amul xaaxam amul dëkk ngay dox ni nga war a doxe te roon yoon wi yàllaa la ko fàkkal yow moom ginnaaw yàlla teg na la ci yoon wan na la dëkk ba nga jëm teg dara munta tee nga àgg yow doxal rek te bul geesu kacca sa gannaaw ca yoon wala nag dangay xam ne xaaxam ba koy jam ak dagg ya moo tax mënatut a noppi ah te mënoo ko mënoo ko xett ndax fam ne fam na doo ko fa fekk te fi nga ne mënu fee indi boppam bu ko defee nga dox loolu muy wax ji mbokk yi yàlla na suñu borom boole suturaal sëriñ Bas tontu yaa suñu waa ji di Cheikh Mamadou Mountakha suñu jàmbaari fàkk tëdd ji nga xam ne lislaam amu ko ñaar yàlla nu ko fi yàlla bàyyi la bi jaahi xaadimi rasuli wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu